danoo xeex dëgg la waaye dañoo xeex pour euh, justice amaat Sénégal waaye dañoo xeex pour maanaam dëkk bi amaat beneen xat kanam ci wàllum justice ci wàllum yoon ci wàllum anam yu bëree bëree bëri ça veut pas dire que yow yaa na maar nga tudd rek que tu dois en avoir maar maanaam yow lu tout qui bouge rek yow def la war pousser pour nga avoir ci marre ça ne doit pas se ainsi si c'est ça alors xoolaat leen li ngeen tuddee tey seen mouvement boobu noonu parce que nag vous devez en avoir marre oui c'est vrai waaye tey ci anarchie ngeen war a xeex ci loolu ngeen war a mën a avoir marre euh, ci doxalin yu ñaaw ak yu salte wala kàddu yu ñaaw yi nga xamante ne tey ñenn ñi ñu ngi koy jël di ko becc ci yooyu ngeen war a avoir marre parce que tey man c'est vrai que nee ngeen euh, xeex ngeen ak. régime u Abdoulaye Wade xeex ngeen ak régime u Macky Sall waaye nag euh, kenn ci ñoom di caat je me rappelle très bien et au fait li tax sax euh, yëf yi yëngal ma mooy euh, ci régime u Macky Sall durant combien de temps les derniers mois yëpp caat était où caat bu yaana maar fan nga nekkoon nee nga da nga xeex ak régime u Macky Sall premier mandat bi nga xeex ak régime mu Macky Sall wala deuxième mandat bi nga xeex ak régime u Macky Sall yow caat bu yaanamaar fan nga nekkoon danga becci woon say xa woon sa xalaat danga organiser woon manifestation kaay ma rimbamba leen kaay ñu delluwaat ginnaaw tuuti fàttaliku ndax ñun ñi nga xamante ni ñoo di journaliste yi à un moment dañu demoon ba ñu naan ñu da ngeen summi seen mbubbu journaliste baa ngeen ne amoon na benn front boo xamante ni juddu woon na ñu koy woowee front pour la défense de la démocratie FDD kan moo taxawaloon FDD lan moo taxoon ñu taxawal FDD jamono jooju Macky Sall dafa reporté woon élection présidentielle sous prétexte que dafa am benn enquête parlementaire boo xamante ni moom la ñu war a yëkkati ndax kenn ci candidat yi dañ ko joxañ ne ko dafa am ay fait de corruption yoo xamante ni jëmale na ko ci ay juge jamono jooju ñun ñi nga xamante ni ñoo di ay taskatu xabaar. ñu naan ñu sax maanaam yéen euh, weesu ngeen seen prérogative journaliste subbi ngeen seen prérogative journaliste parce que jamono jooju dañoo demoon ba sentir ne Sénégal dafa tumuranke su may wax ni dafa tumuranke yenn ci sénégalais yi ñoo doon génn di manifester ñenn ñi mën a wax di wax ñun taskatu xabaar yi danoo wax a wax a wax wax a wax a wax bay waaj a dee ci plateau télévisé yi wa waaye terewul Macky Sall reporter élection yi si la ñu booloo man Mame biram Wathie Coro Maxu Mandela euh, Serigne Saliou Gueye Cheikh Bara Ndiaye euh, Cheikh euh, boro borom ànd sàmm jikko yi lu mu tuddati sax te mu nekk ànd sàmm jikko yi ñun lañu woon ak ñeneen ci ay sénégalais ñoo booloo woon taxawal front pour la défense de la démocratie et je pense que la dernière manifestation qui a eu lieu au Sénégal ñu defee woon ko fële ci terrain bi euh, am fële na le côté xaar yàlla ñun la woon ñun ñoo ko organiser woon en tant que journaliste parce que gisatuñu woon yanamar amul benn manifestation boo xamante ni mën nañu ne jamono jooju Y en jug na ngir organiser ko au contraire caat kenn gisatu la woon toog nga ay mois yoo xamante ni gisatuñ la woon au front la ñuy wax nag ba tax ñun journalistes yi ñu daal di jóg booloo def benn say créer benn front organiser ay manifestation def ñaari demande ñu rejeté ko troisième fois bi la ñu accepté te bi ñu demee foofu ñu am benn mobilisation bu mucc ayib boo xamante ne amoon nañ ko ci jamono jooju ci la Barthélemy Diaz ba ñuy naan waa kër Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall yi ñoo envoyé seen ay émissaires ngir ñu andi bordel ci manifestation bi nga xamante ne moom lañu ñu woon fii fàtte dafay xajul. fàtte xaju fi bu ngeen nee da ngeen jàmmaarloog régime mu Abdoulaye Wade mën naa ne waaye régime mu Macky jamono ji leen sénégalais yi soxlaa fan ngeen nekkoon man de Salma Ibrahima Fall journaliste témoin des faits benn conférence de presse couvrir jamono jooju yéen ngeen def ko di dénoncer reportu élection yi pourtant de ñun Front pour la défense de la démocratie biñ ko créer contacté nañ waa Y'en a marre waaye est-ce que ngeen ñu waaye ñu takk suñu ndigg taxaw temb ne dañuy jàmmaarloog Macky Sall pourtant ay journaliste lañu image boobu daf ñuy topp ba tey ñu naan ñu waa Pastef ngeen parce que lan dañoo d'accordul woon ci jaay doole noonu la nekkee woon ak sénégalais yi reporté une élection présidentielle jàpp sénégalais yi di tëj ci kaso bi jàpp sénégalais yi di buum journaliste du fi waxee lu waay neex def bu fekkente ni Macky Sall nga àndal boo waxee dëgg ñu ne la Pastef nga bokk bu fekkente ni yow yaana yaa ngi doon xeex man dama ne bi leen sénégalais yi soxlaa waxuma ci régime mu Abdoulaye Wade de waaye ci régime mu Macky sàll bi ñu leen soxlaa dëgg dama ne gisuñu leen gisuñu leen pour am leen ci plateau télévisé sax c'était difficile caat bu yaana maar ñaata yoon laa la woo pour invité la ngir ñu def waxtaan jamono yooyu lan nga may wax dama voyager su ma retourné sister dama voyager je te promets que su ma retourné chanson boobu noonu nga doon répéter pratiquement ñu ci bëri ba finalement dañ la mujjee jël tegee la na le léegi tey au nom de la liberté ngeen bëgg a génn ne lan vous vous êtes battu ba heure bii rupture am na le président Bassirou Diomaye fay euh, ak euh, euh, Ousmane Sonko dañu war a bàyyi nit ñi lu waay neex wax waa ma ne ndax liberté mooy di saaga nit liberté mooy wax lu dul dëgg liberté mooy sosal nit liberté mooy jël ay kàddu yu doya doy waa di ko gàll ci ndoddu nit te yow xam nga ni lii ngay wax du dëgg est-ce qu'on pour ça dama ne xeexuñu pour loolu vous vous êtes trompé de combat bu fekkente ni yéen da ngeen yaakaar ni sénégalais yi loolu moo leen ñor bu dee da yaakaar ne sénégalais yi dañoo xeex ba lu toll ci quatre vingt morts daal di am Sénégal plus de deux cents détenus politiques am ci Sénégal journalistes yu bëri ñu tëjoon leen kaso ci régime mu yi Sall ñu xeex lu bëree bëri bëri yéen da ngeen yaakaar ni pour après. ñu bàyyi lan ñenn ñi ñu continuer di doxal ci seeni ay pratique au non de la liberté bi bi yéen ngeen yaakaar ne moom la ñu war a doxal yéen régime bi bu leen dégloo maanaam ci anarchie lañuy dugg on s'est pas battu pour ça si yéen vous êtes si vous vous êtes battu pour ça vous vous êtes trompé de combat les sénégalais ne se sont pas pas pas battus pour ça dañoo xeex pour Sénégal soppi xar kanam ci anam yépp rawatina justice xeexuñu pour permettre un Ahmed Suzanne Camara toog di wax lu ko neex xeexuñu pour permettre un Cheikh Yérim Seck wéy di def du Yérim d'accord ñu ci loolu xeexuñu pour benn Bougane Gueye Dany toog di wax lu ko neex xeexuñu pour Kader toog di yëkkati ay tuuma yu doy waar di ko teg ci police ci wàllum immigration clandestine nga xamante ne dafa nekk benn sujet boo xamante ne c'est un phénomène qui gangrène le Sénégal depuis des années on s'est pas battu pour ça vous vous êtes trompé de combat Thiat Y'en a ma rappelé waat la ko ñaata yoon laa la woo pour inviter la ci plateau télévisé damaa voyager siste bu ma retourner loolu nga may répéter ñun journaliste on était obligé taxaw def benn say jël ay risques yu bëree bëri créer front pour la défense de la démocratie parce que Macky Sall reporté woon na élection yi te gisuñu Y'en gisuñu kenn koo xamante ne jamono ji taxaw na ngir jàmmaarloog régime bi kon bu ngeen ne yéen dangeen xeex mën ngeen xëy na xeex ngeen pour avec Abdoulaye Wade waaye avec Macky Sall bi leen askanu Sénégal saa ngay topp ñenn ñi ci yenn doxalin yi demeel ak sa xel déedéet ñun xeexuñu woon pour loolu te ñun bokku ci ñi bokkuñu maanaam ci ñi nga xamante ni dañuy wax ni régime bi moom bi mu toogee ba tey day jàpp di tëj dama ne ku deful lu dul yoon dañ lay jàpp dañ lay tëj ñun ñëpp ay sénégalais lañ kaso kenn yéenewu ko kenn ku ci sañoo da ngay toog ci sa njaboot xëy suba ba guddi di leen gis waaye nag au nom de la liberté tu ne dois pas maanaam yow tout ce qui rek nga tiire tout ce nga saaga tout tout ce nga sos jël ay kàddu tuuma yu doy doy waa di ko ngàll ci ndoddu nit ñi au nom de quoi yéen en tant que mouvement lan moo leen waroon da ngeen waroon a jóg ne. dama ne yéen ñi nekkul ci yoon dugg leen ci rang bi bu ngeen noppee wala bu ngeen arrêté di sos di tuumaal ay gor dinañ leen noppee convoqué fii kenn convoqué wu nit parce que tu es moche wala tu es beau kuñ fi convoqué rek am na ay chef d'accusation yoo xamante ne gàll nañ ko seen ndodd dama ne waa mouvement Y en a marre on n'est pas amnésique ñun sénégalais te fàtte dafay xajul lan la da ragaloon Macky Sall dama ne bu ngee bu dee janoo ngeen nag Abdoulaye Wade it jamonoy Macky Sall bi ñu leen soxlaa gisuñu leen gisuñu leen kat yow dernier mandat bi nga xamante ne moom la Macky Sall def majeure partie bi yépp nekkoo ci Sénégal dernier mois yi en tout cas ndax man du benn du ñaar woo naa la pour invité da nga ne ma suma ñibbisee sista su ma ñibbisee sista su ma ñibbisee et je le rappelle dernière manifestation bi nga xamante ni amoon na Sénégal ñun na ko organiser woon boo xoolee tey ci demande d'autorisation bi sama signature moo ci nekk sama numéro carte d'identité moo ci nekk ak bu Coro Maxu Mandela ak Maam Biram Waj dernière manifestation bi je me très bien Front pour la défense de la démocratie bu ñu demee ba créer ko ñun en tant que journaliste c'est parce que yaakaaroon nañ ni wala maanaam gisoon nañ ni dañoo tumuranke yaanaa maar gisatuñ ko woon ci terrain bi il fallait benn entité boo xamante ni day jug te yàlla rek tax mu défendre ak ak yelleefu sénégalais yi waaye jàmmaarloog Macky sàll ñu dund ci lu nekk nag bu fekkonte ni yéen yéen a ngi ci terain bi dañuy ñëw jàppale leen waaye du ñu jaral en tant que journaliste ñu jël risque yu ni mel ñu naan ñu nekk too leen ay journaliste waaye jamono jooju suñu casquette journaliste sax suñu casquette citoyen sénégalais lañu ñu jiitaloon ba tey conséquences yu bëri topp ñu ci ndax ku ñu gis yaakaar ni Pastef la ñu bokk kon yéen Y'en a marre vous de combat vous vous de combat Aliou dañ laa tëj kaso tu t'es waaye jamono jooju ani caat ani mouvement Y'en a il faut arrêter les Sénégalais ne sont pas amnésiques les Sénégalais ne sont pas amnésiques bu fekkente ni liberté droit ak ak yelleef moom ngeen di nee leen commissaire Keita lu muy waxati na ko wóor na bàyyi tuuma yi muy jël di ko teg ci ndoddu nit ñi nee leen Cheikh Yérim Seck moom mi nga xamante ni moo ko moo jël am kilo gu toll ni dem ba Sen TV ne daa décider wax ba teppeeku na mesurer ay parole buy teppeeku moo ko waxee noonu moo ne man damaa décider woon noppi waaye finalement damay wax ba teppeeku teppeeku na ba ñu woolu ko na assumer ses actes Bougane Gueye Dany on peut s'opposer waaye tuumaal gor waxal gor lu dul yoon waxal gor lu dul dëgg dafay dàq ci dëkk bi yéenay ñan te man dama bokk ci maanaam euh, ñi gëm ni ndax ndax dangay dégg maanaam ñenn ñi di wax la thèse selon la quoi gouvernement bi dafay def comme Macky Sall day jàpp day jàpp day jàpp day jàpp dama ne bu waree jàpp dafay jàpp il ne faut pas que ñuy jouer au démocrate ba ku def lu dul yoon justice du la woo xam nañ ne on a un ministre de l'intérieur ak un ministre de la justice boo xamante ni coloration politique amuñu ko kuñ ci war a woo nañ la woo dama ne sénégalais yi ñoo leen voteel sénégalais ñoo leen yónni ba pare nag yàkkamti leen voteel leen à cinquante quatre pour cent dès le premier tour du ay foo buñ ko defee maanaam am nañ ci yéen yaakaar te doylu nañ leen woolu nañ leen justice ku mu war a woo na la woo muy Cheikh Yérim Seck muy Bougane Gueye Dany muy kare kadeer euh, commissaire Kayta dama ne kuñ ci war a mandat de dépôt dañ lay mandat de dépôt kuñ ci war a libéré ñu libéré la kaso nag yéene ma yéene wuñ ko kenn waaye kuñ ci war a woo dañ lay woo dama ne suba ku deful lu dul yoon buñ la waree woo dañ lay woo lenn lañuy wax nañ ko teg ci yoon lenn lañuy wax interpellation yi nañ ko teg ci yoon te bu mu am benn par parloo te loolu gisuñu ko ci benn dossier buñ ko ci gisoon ñun ñoo njëkk a génn wax ko ndax ñu dëgg rek moo ñu ñor waaye gisuñu ko ci benn yoon képp koo xamante ne tey interpellé nañ la buñ la wooloo ci yoon am na fu leer fuñ ko teg ndax tey ñi nga xamante ne defuñu waxuñu dama ne ñu ngi seen kër tëdd di nelaw dañu leen fal woolu leen yàq yoon yónni leen ba noppi daal di leen yàqamti kon am na loo xamante ni mënta nekk mënta nekk waaw yaa euh, mon frère Ousmane Sarr bu ma rejoindre sur le plateau dama euh, koy nuyu bàyyi ko mu nuyook yéen parce que tey dafa am ay sujet mais waxtaanu dëgg goo xamante ni dañ ko war a sekk ak yéen parce que nag Sénégal dafa mel ni dañuy euh, toll ci benn moment boo xam ne nit ñi dañuy dof doflu dañuy tay taylu wala nit ñu nekkee lan moo leen ko yóbbee dama ne ñun ñu fi nekkoon doon xeex ñu fi ba tey bougé wuñu euh, puusuñu paasuñu on s'est li ma wax rek ñun sénégalais yi man journaliste laa ma waxaat leen ko gisoon ni Sénégal tumuraanke na gisuñu yaana maar gisuñu benn mouvement boo xamante ni mën na jóg ngir organiser manifestation ngir lan demander suñu ak ak suñu yelleef taxoon na ñun en tant que journaliste ñu taxawaloon mouvement pour la euh, front pour la défense de la démocratie FDD dernière manifestation bi amoon Sénégal ñun ñoo ko organiser man Coro Maxu Mandela euh, euh, Mame Biram Wacc boo xoolee tey demande d'autorisation de manifester yi suñu tur a ci nekk suñu numéro carte d'identité moo ci nekk Serigne Saliou Gueye bokkoon ci groupe bi Cheikh Bara Ndiaye bokkoon ci groupe bi mouvement Y'en na marre dama ne bu ngeen taxawoon ni ngeen waroon a taxawee ñun journalistes yi duñu wàcc au front ba finalement suñu image yu bëri foofu la ñu jàppee waa Pastef ngeen alors que dëgg moo ñu ñoroon loolu il faut ñu